demee ba toj dëgga dëgga si lañ dee door a réalise ne xay man tojuma woon yeah Well, like I said, from the Indiana Simmaki Tamit, so that's why we brought in ST, Royal, Smalls, and even Big Fab. Because, I mean, so said in eh, a Kumelni Jizzle uh, uh, Nobles, ñom tam si uh, generation in Louis Rainbow, maybe ñom ñoo bos rek si génération boobu waaye ñoom tam si génération indo yi lañ bokkal waaw ñoom ñële ñële tam seen nawle lañ waaye de foog nga indi ay mag xam nga tamit li olof di wax rek ah, mag baax na si réew you know bàyyi fa ñaar ñetti mag ñu teetee xale yi waaw ba xale yi ñoom tam dëgër waaw fer nga bàyyi ñoom it tamit waaw am yéen xam nga làmba balaa moo neex mbër yu bari mm-hmm. waaw asked you several questions um, in the past. Right. Like that, okay, in the few Mala artists, few hip hop artists, wow. Wow. Wow, because in the name, a lot of uh, Sihale, in the name dancehall, in the name hip hop, in the name Afrofusion, you know. And I mean, uh, then see Benen genre bitamit, see I mean, see Makitamit, if you want to call them Makitamit. am nañ fa different genres you know uh, ST with hip hop Manding hip hop I mean uh, you have the reggae fele Big Faa moom kenn xamul ban façon music la dee des <laughs> moom yuuxu yuuxu xam nga waaw ah. <laughs> non waaye li moo def nag mu ngee dox pour moom yeah exactly li am nga so I mean yeah nga indi balance boobu am nga tamit fii nekkut ne right now dañ am a particular genre booy mun a ooyee ne lii mooy Gambian music so foog nga yaatal ko ñëpp xëj si waaw ba ñëpp gis ci seen boppa tamit daal waaw waa waaye last year amoon nañ bala am nga tam doo waa doo mun am doo mun a doo cover all grounds every time tamit foog mu am wa last year was ten years boy ten years was a milestone ten years milestone la boy So xam nga boobu boobu da nga bëggoon a cover